maître Clédor Ly nag gis nañu ay vidéo am yoo xam ne mu ngi ci internet bi dafa mel ni ma ngay booxanteeg polise ya ca bunt ba daa bëggoon a dugg wala bëgguloon dugg dafa tardé wala lu xew waaye gis nañu vidéo bi daal dinañ ci ñëw dinañ ñëw tamit ci euh, Ndeye Fatou Ndeye Fatou Ndiaye nee na ab journaliste la ma nga fële ca Sen TV journaliste buy def ay chronique kenn xam nga def lan la daal dinañ ci ñëw dinañ ñëw tamit ci Sadio Mané ñancoo bu mag yi sunu gaynde gi yàlla yàlla lefal la cat voilà yow cat da la war a seexlu yaay daan am offre yi moom beneen affaire la dinañ ci ñëw voilà kon euh, yaakaar naa ni daal lii nekk na li nga xam ne nii euh, moom lañ leen di indil tey ci 94 euh, fu Sénégal ngeen xam ko bu baax a baax a baax kon ñu ñëw ci Ndeye Fatou njaay Ndeye Fatou Ndiaye wax nañ ni moom ab si la voilà gis nañ ko nag ci penc mi daa ñëw ci penc mi nag moo tax. Ndeye Fatou Ndiaye nag ab journaliste la lañ wax ni moom la walla journaliste boo xam ni ku nekk xam na ni moom daa daa jéng walla deful euh, maanaam équilibrewul daal équilibrewul ñu baree bari na loolu lañ wax sénégalais yu bari loolu lañ gis ci moom te xam nga yi moom euh, li ñu gis ci yow rek la ñuy wax waaw dëgg la kenn du xam lépp rek wax lépp waaye daal journaliste moom liñ ci xam boo porté ne yow ab journaliste nga da ngaa war a doxal ci sa rôle journaliste. xam-xam bi nga xam danga koo jàng muy méccam journaliste kooku danga war a yem ci xam-xam boobu noonu équilibre lépp loo gis rek waxal loo gisul sa yoon nekku ci walla nga teg ko ci digg bi waaye bu fekkee dangaa dem ba nga dangaa jéng ba Sénégal yi yépp xam ne yow mii nday faatu nag dangaa jéng bay boo ñu xoolaat sa méccam journalisme parce que tamit euh, li la wutaleeg nit ñi mooy dangaa nekk ci télé boo xam ne nii télé la boo xam ne nii journaliste yi professionnel la ñuy jël voilà même ñooy def chroniqueur sax dañoo war a professionnel voilà la ñuy wax ak la ñuy gëstu dafa war a leer waroo bokk ñi nga xam ne ñoo nekk ci réseaux sociaux yi rek voilà ñoom seen yoon voilà ñooñu seen i compte TikTok wala seen i compte YouTube waroo mel ni ñooñu déedéet yow moom dañ lay xaar ci information wala dañ lay xaar ci ay kaddu yoo xam ne suñ ko déggee ne ah li ñu dégg ci Ndeye Fatou li mu wax kat macha allah gongo moom kat journaliste bu équilibre waaye bu ñu demee ba Sénégal yi naan waaw kii moom ab journaliste la wala ab chroniqueur bu yor ab kontam la te fàtte nañ ni sax Sen TV nga ne. loolu xam nga nekk na loo xam ne seetaan leen ko bu baax a baax moo tax may wax chaque jour ni leen lis yombul voilà képp ko ko porté képp ko ko doon xamal bu baax a baax a baax surtout nag moment bii ñu toll nii dañoo nekk ci moment boo xam moom vraiment voilà ku sàggoon tuuti rek ñàkk li nga yor kon nañ ko xamee noonu kan kooku mooy Ndeye Fatou gis nañ ko ci euh, penc mi voilà ni ñaa ngi ciy wax voilà mi ngi noonu kon voilà su ko defee rek ñu ñëw ci Clédor Ly gis nañ benn vidéo boo xam ne daal wax dëgg yàlla euh, mu ngi ci penc mi voilà euh, gis nañ ko daal mu taxaw ci buntu euh, bi nga xam ne ni foofu lañu waroon a dugg pour voilà gisante ñi nekk foofu noonu waaye dafa mel ni gars yi nungulul leen ko boo xante ba daal moom ma nga mel ni tulleeg màlle voilà dégg nañ tamit moom ki dóor lii daal mu ni moom jàppoon na ni jàppoon na ni daal dina juddu ba faatu te du gis lii mu gis tey voilà loolu nag moom moo ko xam voilà xëy na tamit liñ ko pro xam xëy na tamit liñ ko teree duggul ak yooyu noonu waaye jàpp naa ne man avocat man avocat ah xëy na nag gars yi moom wax dëgg yàlla seen xam moom yaa ma gën a xam kenn ku nekk li nga xam waaye jàpp naa ab avocat moom ah surtout nag kële doon li nga xam fi mu toll ak sénégalais yépp xam ko ak ki mu doon man jàpp naa ne ñu mel noonu waruñu leen di téye ci bunt bi daal ah yàlla xam daal ndax gis nañ ko daal mi ngi taxaw ci bunt bi Euh, mi ngi taxaw ci bunt bi daal wax dëgg yàlla di kaas wala gars yi mu ngi bëgg dugg bu naree dugg ñu xam nga ñu xëccaat ko du dugg bu ba mel ni tout les man la vidéo yaa ngi ci internet bi voilà waaye boroom xam-xam bii wala avocat bii nga xam ne wax dëgg yàlla ñëpp ràññee nañ ko comme moom lañ mën a téye ci buntu xont balaa koo xam ne wax dëgg yàlla yorul dara ci xam-xam Sénégal <laughs> moo tax Sénégal te yàlla na ñu yàlla gën a dimbali mais xam-xam ay réew mi ci kanam de ay borom xam-xam ñooy réew mi ci kanam mais fekkee nii lañ ko nar a doxale xam naa ni réew yi ñu wër nii de bu ñu doxalee benn cinquante ans ci kanam ragal naa ni dana ñu raw de billaa man nii ma gisee suñu réew mii ah man wax dëgg yàlla bu ma sañoon réew mi dem ca kanam avancé bokk ci réew yi jiitu waaye sa waay yoon wakat dafa mel dañ fa jaarugul ndax man damay gis naan wax dëgg yàlla euh, ay borom xam-xam yoo xam dañ leen di ginnaawal wala dañ leen di ñàkkal fayda di leen te wax dëgg yàlla réew mu ci dem faaw nga jël say borom xam-xam jiital leen ci kanam voilà sans complexe mais wax dëgg yàlla vraiment man li ma gis man xaw ma ko man waaye mi ngi noonu daal en tout cas Clédor lii voilà gis nañ ko daal ci bunt ba ma ngay xëccoo gaaya xam nag lu waral loolu noonu voilà Clédor lii nag génn wax na daal euh, presse bi wër nañ ko xam presse bi moom sama gaay yi moom yaa ma gën a xam dañoo gaaw te dañoo xam nga yaa ma gën a xam ñoom dañ lay taxawaa maanaam dañ lay taxawu waa maanaam dañuy nekk sa tànk yi ñoom ñu nga fële di xaar gaa yi génn pour ñu dégg leen micro pour rek yaa ma gën a xam ñu jox ko askan bi askan bi wala bégee ko ndax askan bi tamit loolu la ñuy xaar ci yéen voilà kon loolu daal nekkoon na li nga xam ni tey ji gis nañ ko ci ak actualité bi mooy Clédor lii wala Ndeye Fatou ak tamit Euh, ki nga xam ni moo di euh, suñu ñaancoo bi di euh, Sadio maane voilà Sadio Mané mooy jour bi nga xam ni ma nga fële na la ci Arabie Saoudi di sénégalais di am ñànco di jàmbaar di joxe di wax ni moom di suñ benn yoon ginnaaw dafa wane ay preuve ba européens yi bëggaat ko gis nañ nag ay ay ay ay ay ay yu bari voilà ñu ngi taxaw ci ay tànkam pour jënd ko. voilà kon offre yaa ngit voilà dàqante voilà moom saajo nag am na staff leen naan staff am na tamit ay techniciens yu ko wër voilà moom ci jëmmi boppam tamit xam na bu baax a baax Europe voilà mais nag man bu ma sañoon man sama xalaat bopp lay wax wax naa ko waxati ko Sadio Mané moytul ma France moom demal fële ci Angleterre dégg naa ay pare ngi ci ay Newcastle ay Manchester United ay Chelsea mais lu ci mën a am rek Angleterre daal sa waay mooy las bi moom foofoo baax voilà mais yeneen championnat yi man doyuñu ma parce que yow ñancooŋoo demagoo fenn voilà euh, danga nga war a indil ay kubi kubi ku fii voilà kon nag moom ci boppam euh, offre yi xëy na mën naa am ci mercato bi euh, équipe yi ko bëgg du ñàkk mën naa am bu nu juboo voilà ci prix ñuy jënd ko mais nag équipe bi ko jëndoon équipe boobu ñooñu dañu bari xaalis muy Al Nassr mais li ma ci metti tamit mooy liñ naan xalam demoon na bay neex buum nga dog waaye est-ce que sax buum ngi dina dogagul parce que tamit ma nga ci alnasara gars yi dañoo proposé rek voilà offre yi gis nañ ko gars yi ci ay tànk mais est ce dina dem voilà loolu lay wax ji voilà loolu nag ci kanam dina leer waaye bu demee sa euh, doomu ndeyam bi xam nga Sénégalais yi dañoo gaaw a wutal ndax ma Sadio Mané Ronaldo duyoo bi ah bu demee soo alnasara ba duñu jooy waaye Cristiano Ronaldo ragal naa ne mooy njëkk a jooy de parce que moom ci jëm boppam sa waaye dafa bëgg waaj te waaj tamit du ko bëgg te dañ ko dañuy joxante vraiment Sadio Mané Cristiano Ronaldo ci terrain ñëpp ko soxla. waaw kan nag Sadio Mané quitté di demaat feneen ah loolu Ronaldo dina ko wétal de voilà kon daal mi ngi noonu Sadio Mané ngi noonu di koo xam ne daal wax dëgg yàlla européen yi ñu ngi ko tegaat sopp voilà maanaam ñu ngi taxawaat ci ay tànkam pour bëgg ko récupérer waat indiwaat ko Europe voilà nañ leen xool ba xam tubaab yi ak naari yi ba xam nañ la ñu mujjee ak Sadio Mané mais en tout cas daal chroniqueurs yu mag yi techniciens yi maanaam ñi nga xam dañu wax ci football chaque jour saa su nekk rek seen ala ini yëpp ci seen journal yi yëpp dañuy wax ci Sadio waaw loolu nag dundal seen i journal la ak ya ci aju yaa ma gën a xam wut ay continent yooyu noonu xam nga Sadio moom phénomène la quoi voilà phénomène de monde voilà moom Sadio ñu ngi lay jaajëfal waaye ak sama gars yi kon euh, lii daal nekkoon na li nga xam ne nii moom lañ leen doon indil fii ci 94 euh, Walfu euh, Sénégal dina wax rek ngeen way di abonné di partager di sem di commentaire jaajëfal nañ leen sedd rek sedd rek jamono sedd lañu nekk nag sama gars